lépp dinañ ko teg ci yoon xam nga dama leen di wax nii man mii looy daj nañ ko pour ma bañ a nekk candidat lu ne fañ ko jaarale woon ñoom ma wax benn ministre ne rapport épinglé na ko wax na léegi lii ñu ne loolu amut dem ministère des finance daa di nëbb rapport bi suñ ma convoqué tribunal daa di baare yoon bi dóor toj samay oto pour ma bañ a egg tribunal ñu corrompre ay magistrats cour d'appel ba cour suprême ñu ñëw génne seen décision conseil constitutionnel président baajo wër moom dem lu kenn mësul gis ne moom mooy dem ut décision de justice toogul ñu andil ko ko pour ko bañ a nekk candidat waaye yàlla ay mbiram tey rapport bi ñu doon nëbb ma nga sama kaw table ma nga sama kaw table rapport ba ma sama kaw moo tax yàlla rek a mën te nag dinañ ko jox justice mu def ci li mu ci war a def ndax seen fen boobu ñu doon fen tax na ay nit dee fi tax na ay nit dem fi kaso tax na ay nit ñu gaañ ko te bañ koy def ñoom ñëpp xam nañu dañuy fen ngeen jégal ma ci kàddu gi kon ma dellu si neneen projet bi yéen yéen a koy porte naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci débat yoo xam ne amul solo bu bu leen ku jóg wax rek ngeen ne dangeen koy tontu suñu mag Alioune Tine wax na xalaatam est-ce que dafa saaga est-ce que dafa xaste man d'accord mag xalaatam waaye loolu mooy rôle moom jarul xuloo jarul xeex loolu mooy rôle te démb mi ngi ko doon def ñëw toog suñu wet naan li ñuy def du yoon néewoon na ci baatu société civile yi ko doon wax di ñu fekk suñu kër di ànd ak ñun di solidarité. moom ak keneen ak keneen Seydi Gassama Birahim Seck ci jamono jooj ñu ci bari ci ñoom ñi nga woon pale toog ci ñeneen ñi kon tey bu waxee xalaatam buñ ci d'accordul tam nañu ne d'accorduñu ci rek andi ko teg ci teg ko ci xam-xam waaye yooxu beeg xaste beeg ñun santuñu ko kenn lay li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy set formidable force qui est en vous vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le monde entier vous bi su ngeen xamoon damay xëy suba ba ngoon jot di recevoir ay nit yoo xam ne dégg naa rek ne nañ waruma recevoir ay ambassadeur lan mooy ambassadeur lan mooy ambassadeur est-ce que xam ngeen ni daa un pays normal ñun suñu demoon ba egg fi ñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur duñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre sax ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller euh, Cyril Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi euh, page Facebook wala site primature mosu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur mooy recevoir parce que man pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur te ma ci recevoir it sama kilifa son excellence moom moo ma recevoiral ma ambassadeur tel ma recevoir ko waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy ambassadeur yi ñuy recevoir homme d'affaires yi jóge fu ne damay xëy suba ba ngoon jot bés bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeek ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax mooy Sénégal bu ne savez pas ce que vous Vous et une lumière pour le monde, pas seulement pour l'Afrique. Et vous n'avez pas le droit d'échouer. amuñu droit échouer parce que bu ñu échouer liy kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jóge fu sori jël jet privé ñëw ne daf may gis parce que dafa bëgg a andi ay investissement ak yeneen ak yeneen. mu ñëw ñu toog mu wax ma benn frase bu am solo mu ne ma est-ce que xam ngeen ni ce que vous avez réalisé.